bokk yi ñuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel. tey amaat mbégte mu rëy ci ñëwaat ak yéen ci seen émission bii nga xam ne da ngeen koy topp ci seen seen GMT TV muy émission gàggantiku. émission gàggantiku nag dafay aju ci ay fatawa muy ay laaj ak ay tont yoo xam ne dañ koy. am di ko jagleel sunuy gan yi ñuy dalal maanaam sunu mufti mu laaj yoo xam ne dafay jëm ci lislaam loo xam ne dafay yéwénal suñu diine ak suñu dund àddina mu ngi mën a jariñ euh, émission bi nag mi ngi am ci weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le tey jii tamit nag ci émission gàggantiku ñu dalal sunu gan euh, Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ngeen miin ko bu baax a baax ci seen seen GMT TV ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy def kon su ko defee dañuy jébbal kàddu gi Serigne Cheikhouna mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen seen GMT TV di seenu Grande Mosquée de Touba Serigne Cheikhouna bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ Abdou la noo ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboolem mbokk yi nuy topp ak fu ñu man di nekk di ñaan yàlla defal nu jàppandal ba ñu fi wax doon lu jub njariñ defal nu jàppandal ba lu am njariñ ci wax ji nu mën ko jariñoo jërëjëf sëriñ Cheikhouna kon suñu laaj bu njëkk tey bokk mi dafay laaj lan mooy àtteeb ki nga xam ne dafa gént ci bëccëgu weeru koor xam naa max naa li mu jublu mooy dafa gént gis man yu ci bëccëgu weeru koor fekk mi ngi woor li ñuy wax gént mooy ku nelaw ci ku woor nelaw ci bëccëg bi bi mu noppee gis mani yu génn ci moom kooku bu dee wàllu koor gi moom dara siku ci yàqut koor yàqut koor day àggale kooram rek sangu daal lay def ndax man yi bu génnee ci nit moom ak nu mën di génne euh, sangu dana ci war waaye nag lu yàq koor moom du yàq koor euh, kon euh, sëñ Abdul Ahad bu fekk gént la dana sangu dana sangu waaye nag du yàq kooram. Hmm. jërëjëf kii moom dafay laaj lan mooy àtteb ki nga xam ne dafa bàyyi ab ponk ci ponk lislaam yi. ponk lislaam yi muy juróom yooyu nu xam. wala hmm. boog euh, ku ci bàyyi benn dañ naan lu tax mu bàyyi ko lu man xew moom mooy. duñ ko seetaan duñ ko seetaan buñ ne duñ ko seetaan nag mooy kilifteef gi waru koo seetaan kilifteef gi kilifteef gi nag gi wërta seetaan nag mooy kilifteefu réew mi loolu day fekk nag réew mi di attewoo lislaam bu dee réew muy attewoo lislaam ku doon ab jullit ba noppi bañ a def ab ponk waruñ koo seetaan mooy danañ ko woo digal ko mu def ko bu fekkee lànk na bañ koo def ñu seet ñu seet lu tee mu def ko bu dee nangu na ne ci lislaam la bokk waaye daal defu ko boobaa dinañ ko teg ay daan bu fekkee nag daane dafa dane dafa dafa bokkut ci lislaam moom dañ koy jàppe ku dul jullit léegi ndax loolu dañ naan weddi weddi lu bokk ci lislaam loo xam ne kenn mënu koo réere la lu bokk ci lislaam loo xam ne kenn mënu koo réere ponk yi kenn mënta réere ne ci lislaam la bokk kon ku ne ku am bu mu ci wax ne bokku ci rek kooku dañ koy jàpp ku génn ci lislaam bu kon ne atteb lislaam day dox kooku dañ koy teg atteb génn ci lislaam ci bañ def ponk bi nag te weddiwu ko moom it mën nañoo àgg ci ba rey ko waaye du tee mu doon jullit ay daan lañ koy teg yoo xam ne mën naa àgg ci rey ko waaye du tee mu nekk ab jullit dañ ko defal la ñuy defal jullit buñ ko reyee itam bu dee ki njàpp ne dafa génn ci lislaam nag ndax daa weddi ne da dafa wax ne ponk bi daa bokkul ci lislaam kooku dañ ko jàppee ku génn ci lislaam te atte buñ koy teg buñ ko ko tegee itam duñ ko jàppee te ab jullit hmm. jërëjëf sëriñ Cheikhouna euh, kii moom dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci commerçant bi su fekkee ne kiy jënd dafa ñëw di jënd ci moom marchandise moo xam ne amu ko mu dem wuti ko faneen ngir jaay ko ko maanaam loolu xëy na courtier yi wala ñiy nooru ndax loolu lan lan moo ci atte bu ci lislaam ba waaw am na anam gum koy gumuy dagane day am na anam koo xam te du dagan bu fekkee nit dafa ñëw ci kuy jaay am lu mu bëgg te fekk amu ko bu fekkee dane ko mën naa koo am jaaye la ko nangam mu ne ko baax na kon demal andi nga xam ne kon jaayante wuñ dañoo diggante mm-hmm. loolu dig la digg na dig na ko jaay ko ko moom digg na ko jënd ko kon mën naa dem wuti ko bu ñëwee jaay ko njaay mi door a am boobaa dana baax ndax dañoo diggante rek bim ñëwee ba bi ko amee ba indi ko nag la koy door a jaay mhm. waaye du sañ jaay ko ko te amagu ko jaay ko ba njaay mi dog mu door koy wuti loolu du ko sañ ndax bokk na ci sarti njaay kii eh, jaay moom li jaay moom kumba mu am ndigalul ki ko moom jaay nit jaay lum moomut dañ koy tere jaay lum moomut mooy lum jotagut lum jotagut dañ koy tere waaye diggéey nag mën na ko mooy mën naa ko am de jaay la ko nangam mu ne ko baax na boo bo ko andee ma jënd ko boobaa dañoo diggante rek bu ko wutee andi mu jënd ko foofu la njaay mi door amee dana baax waaye nag duñ mën a jaayante ba njaay mi dog moom mu door a dem di ko wuti boobaa liñ liñ tere ci njaay da cay am te mooy nit ki jaay lum moomut lum amut hmm. jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii dafay laaj ndax dana dagan ci maamoom muy jàng faatiha ginnaaw imaam loolu xëy xanaa da cee jëñ cee jublu ba tey bu dee wax ci kaw. bu fekkee ilimaan jàng ci kaw. bu de ci ngëriñ moom yi topp ci ginnaawam du jàng. da koy déglu rek. da déglu rek waaye bu ko defoon tam du yàq julleem ci ngëriñ itam bu jàngoon tam du yàq julleem bu dee ci am na ngër yooyu nag bu ilimaan jàng ci kaw buy jàng suuf yëpp faatiha moom ku ne da ko war a jàng. boobaa it kon kooka moom daan euh, da koo war sax lañuy ñuy wax daa war a jàng boobaa it lay gën nag mooy ilimaan daaneel mu door a jàng waaye jàngandoog moom moom dañ koy bañ ilimaan di jàng ci kaw ba noppi keneen di jàngandoog moom loolu ñu ne sax mënuñoo ñàkk jàngit euh, dañ naan na ilimaan daaneel ba tax na am na béréb yooyu ilimaan buñ fay jiite buñ daaneele dañuy buñ jàngee fatiha ba noppi dañuy may ab diir ñu topp seen ginnaaw ku ci bëgg jàng fatiha man koo jàng mu door jàll kon daal bu dee ci ngër mi digle wuñ ko waaye bu ko nit defan tam du tax mu yàq julleem am nag sax ngër yu koy digle moom ne fatiha moom kenn ku ne da ko war a jàng ci ràkk bu ne bu ilimaan di wax ci kaw bu dee wax suuf kii moom daf ne ndax dana dagan ci jullit bi muy dem ci tefes yoo xam ne ci tefesi géej yi di fa jaay ànd ak la nga xam ne moo fay nekk ci ay góor ak jigéen yuy wuññi seen awra ngay nekk ci seen biir di jaay di jàkkaarlook awra yooyu mu ne loolu ndax dana dagan ci jullit bi xam naa ne ci bitim réew la gën a valable ci ci suñu bokk moodi yi nga xam ne dañ koy def di dem ci tefes yi di jaay ak sax ñi koy def ci biir réew mi wala ci sous-région bi. Mm-hmm. loolu moom tënkuwul rek ci jaay tënkuwul rek ci tefes waaye euh, nit wër te feeñal awraam fenn fenn lu dul xëy na biir néegam bu fa nekkee moom rek wala mu nekk faak comme ko sañ a feeñal ci kanamam te mooy di diggante soxna ak borom këram rek. Mm-hmm. Euh, nit tam warut a xool keneen moom it mhm. fenn fenn moom du tefes du fudul tefes euh, léegi nag ki nga xam ne day jaay nit daal dañ koo diggeel muy moytu kem kàttanam mhm. lu baaxul lu ne moom nit ki da koy moytu kem kàttanam mhm. bu fekkee mënut ñàkk jaay ci béréb yooyu bu dee mënu faa ñàkk jaay day moytu kam kàttanam loolu daal lañ lañ lañ ci mën a wax waaye moom du tax ñu ne dañ da koo sañ dañ koo maye waaye nit day moytu kam kàttanam bu fekkee dem na ba ne moom jaay daal bu koy def mënut ñàkk jaay fii kon na jéem a seet beneen liggéey bu dul jaay kon bu fekkee euh, kuy jaay mënut a ñàkk jaay ci bërëb yooyu ci bërëb yooyu ku fa dem loolu nga fay fekk kon na jéem am seet beneen liggéey bu dul jaay li feeg mu koy am nag man na mën nañ koo jàpp xëy ku ñàkk fexe ku ñàkk fexe koo xam ne yàlla mën na koo bañ a topp mën na ko bañ a topp ca loola waaye daal du lu nit war a euh, doon daal lum lum lum lum na ku ci ku ci loo xam daal da koo rafetlu wala da koo yoonal wala yu mel noonu na sabab lu ngir mucc ca li fekk mu cay mën a mucc nag xëy na mën nañ koo jàppe ku nekk ci ak ñàkk pexe kun mën a yaakaar na yàlla du ko jàppee loola jërëjëf kii daf ne ki nga xam ne dafay woore ci réseau boo xam ne wala dëkk boo xam ne bëccëg bi dafa gën a gudd lool guddi gi maanaam kooku naka lay regle waxtu kooram waaw ah, moom bu fekkee bëccëg am na guddi am rek hmm. amul lu ci réglé day woor bëccëg bi ndax noonu nga xamee ne waxtu dana ñëw bëccëg bi gudd lool noonu la waxtu ñëw itam bëccëg bi gàtt lool ginnaaw nag day wër koor gi day wër léeg-léeg mu dajeeg bëccëg bi gudd lool léeg-léeg tam mu dajeeg bëccëg bi gàtt lool hmm. ginnaaw am na guddeeg bëccëg rek amut lu muy nattale moom diggante bi ñu war a woor rek lay woor bu fajar jotee boo jant bi sox mm-hmm. bu ko amul nag te am na mm-hmm. am na ci àddina si béréb yooyu du am guddeeg bëccëg walla buñ buñ doon wax guddeeg bëccëg dañ naan guddi gi juróom benn weer lay doon bëccëg bi juróom benn weer mm-hmm. ñooñ ñooy nattale ñoo ñaay nattale waaye li feeg moom li ñuy tudde vingt quatre heures yi moom am na guddeeg bëccëg luñ ëppante ëppante it bu dee koor ak bu dee julli yëpp waxtu yim mu koor def rek la koy def bu fekkee nag daa amut loolu amut vingt quatre heures yoo xam ne mooy bis bi waaye bis at mi yëpp benn bis la daanaka boobaa wala boog ñaari benn bis sax ndax juróom-benn yoo xam ne euh, bëccëg la ak juróom-benn yu doon guddi boobaa moom ci lay nattalee ci lañ naan na seet fu ko gën a jege fu am guddeeg bëccëg muy tënku ca muy tënku ca ñoom waaye ginnaaw am na guddeeg bëccëg rek ci biir vingt quatre heures yi moom day tënku ci guddeeg bëccëg lu guddi lu bëccëg bi gudd gudd wala lu mu gàtt gàtt euh, moom lay woor rek du nattare waaye day woor bëccëg bi bu fajar jotee ba ba jant so bu ko attanut na tàmbali bu demee ba xam ne àttanu ko mu dog mhm. waaw am na foo xam ne bëccëg mën naa dem ba ñaar fukki waxtu daanaka li ñu war a woor maanaam li ñu war a woor ay jamono bu dajeeg moom mën naa dem ba ñaar fukki waxtu mhm. bu tey bu xëyee na woor bu demee ba àttanu ko nag mu dog saa bu demee ba jamono ju jàll nga xam ne jamono ju bëccëg bi gën a gën a gàtte la mu fay ndax noonu muy demee noonu safaan bi day ñëw jamono dana ñëw it koor gi dajeeg bëccëg gàtt lool bu dee jamono yi bëccëg bi nekkoon na ñaar fukki waxtu bu safaan ba delsee bëccëg bi ñeent waxtu lay doon te booy itam moom lay wor moom lay woor waxtu rek lay woor kon bu dee mbéy ñaar fukki waxtam na na ko muñi loola <laughs> bu guddee mu woor bu gàttee mu woor la muy gàtt moo koy mooy fay la muy gudd ndax day wër rek. maanaam ki nga xam ne dafa tàmbali koor masalan ci fu gàtt jël lu mel ne avion dem foo xam ne euh, koor gi dafa des maanaam jant bi dafa des lu bari dafay attewoo ci fi mu wala dafay attewoo ci fa mu nekk. fa nekk rek nit ki moom fi mu nekk rek attewoo ci wàllu nekk rek fi nekk rek. di fi mu nekk daal moom jant bi sowut kon waaw ni ñu ko waxee nag bu dee lu mel noonu ko sabab la ñuy tudd décalage moo ko sabab waaw saa bu dem ba attantu ko itam sañ naa dog mm-hmm. bu dogee dara fekk du ko fekk lu dul fay rek fay rek moo ci fekk ñu nekk nga xam ne nag ku woor lu man di tax mu dem daal ba attanatu ko rek day daal dog mm-hmm. lu man doon mm-hmm. day daal dog te bu dogee itam fay rek lay def am na sax ñoo xam ne dañ du fay waaye bu dee ci ngir moom ku dog ak lu man tax mu dog moom day fay Euh, mbokk mi dafay wax ne ndax dana dagan ci jullit bi muy jëflante ak koo xam ne dañ ko dañoo ràññee ci moom ne góor jigéen la maanaam muy jëflanteek moom ci wàllu njaay walla jënd mu ne ndax loolu dana dagan ci jullit bi mm-hmm. jëflante ci loo xam ne jëmul ca mbiram lu mën a jaay ak jënd loolu dara newu ci kuy jaay ki ñëw ci moom di jënd sañ na ko jaay la muy jënd ñooñu li ñuy bañ mooy jëflanteeg ñoom ci anam gu mel ne daal da nga da nga da nekk nit ki jëflanteeg ci anam ko xam day mel ñaawlu wut wala da koo bañut wala yu mel noonu waaye jëflante boo xam ne kuy jaay kuy jënd la rek loolu manees na ko jëfandikoo lu mel ne ay xaritoo lu mel ne xaritoo di demalanteeg dikkalanteeg yu mel noonu loolu la ñuy bañ ndax loolu day mel ne moom nit ki yenn jaxasoo boo ko jaxasoo nit day mel ne lam nekk day day loo bañut day loo la saf wala day loo ñaawluwut waaye nag diggante jaay ak jënd rek yor sa oto nit bëgg a dem fenn nga yóbbu ko yooyu euh, kuy kuy tax ku yor taxeem ku bëgg dem fenn arrêté ko mu bu xamee lu man doon tam bu ko ne yóbbu ma béréb sàngam te béréb ba doonut bu muy defee la la la ñuy bañ mën na koo yóbbu bu jël taxi bëgg dem marché wala bëgg a dem feneen mën na ko yóbbu waaye bu xamante dem ci nag lu bon mën na ko bañ a yóbbu euh, kii dafay dafay dafay wax ne lan mooy àtteeb ki nga xam ne dafa jël euh, dara takk ko muy muy lu aju ci wàllu der te der boo xam ne euh, maanaam sébejuñ ko maanaam maanaam maanaam maanaam xamul ba xam der ba euh, bi muy jëfandikoo sébéj nañ ko wala sébejuñ ko maanaam dindi nañu la cay rookee ja xëy na xamul ba xam daal laab na wala laab na wala laab wala xëy na xam hmm. euh, naa ñuy takk téere lay wax hmm. takk téere kon ku ci takk téere boo xam ne dañ ko ëwee der hmm. boobu xamul naam laabut hmm. boobu xamut laab naam laabut mi ngi aju ci fam jóge bu dee ki koy defar moom liñ xam liñ xam ci moom mooy der bu laab lay defare hmm. mu jàpp ne laab na rek mu jàpp ne laab na bu dee nag ab safaan kuñ xamee leneen waaw kon du ko jëfandikoo hmm. jëfandikoo bu ko wóoree laabut du ko jëfandikoo ab jullit du ànd rek lu laabut mhm. lu xam ne laabut du ànd ak moom mhm. doon lu muy takk du doon lu sol doon lu muy dugal ci ay poosam wala fenn mhm. lu laabut moom jullit du ànd ak moom te di ko xam waaye nag bu fekkee xamut waaye ki ko defar liñ li liñ xamee ci moom mooy lu laab la daan jëf la daan defar kon na jàpp ne laab na rek waaw bu xamee ne laabut nag mu door ko jëfandikoo mu ne kii dafay laaj ne ndax li ñuy wax leele leele ci wàllu miskin maanaam leel leelu miskin euh, mënees na koo def ci ñam wuñ togg wala faw rek dafa war a doon ñam wuñ toggut waaw loolu da xam nga jublu gi jublu gi mhm. jublu gi moo am solo jublu gi moom mooy jox nit ki lu mu jëfandikoo mhm. léegi nag jox ko lu sotti am na ko daal jëfandikoo ci saasi buñ ko sañee jox lu sotti wut kon yoon na maanaam sañ ko jox lu sotti day mel ne moo gën a gaaw a sottal jublu ga jox ko luñ toggut moom mu di ko toggaat di wutaat leneen luñ ci boole jox ko luñ togg ba noppi nga xam ne ko daal jëfandikoo rek loola moo gën a mën a sottal jublu ga kon loolu lu lu lu lu luñ nangu lay doon luñ nangu leen doon cosaan la lu sottiwut lañ daan joxe mhm. waaye nag ku joxe lu sotti itam ñu bare bare noonu la ñuy def ñu bari dañ naan la joxal nit lu ko lu ko suur rek mhm. lu ko suur lu sotti moom ñoo xam ne sandwich lañuy joxe waaw mhm. ah, boobu sandwich boo ko joxee nit mën na koo suur ah, wala yu mel noonu loolu man na moo gën a mën a gaaw a sottal jublu ko jublu ko mooy jox nit ki lu jëfandikoo ba mën a suur Euh, mbokk mi dafay laaj ne mu ne ndax dana wér ci ki nga xam ne dafa ame mbërëg maanaa dafa amee baax muy woor ci bis boo xam ne yéene woon na ko ci ci te ci guddi ga daf koo leeroon ne bu ëllëgee rek lay set maanaa su xëyee ba noppi mu yéene ci guddi gi ngir léemtu léemtoo xam ne ëllëg dana set maanaa ëllëg du ci mbërëgu dal dana set ginnaaw fajar ginnaaw fajar waaw. def sañu ko boo sañu ko sañu ko bi muy sañ moom mooy fajar bi daa fekk mu laab waaye bu fajar fekkut mu laab du sañ a du sañ a woor du kii dafay laaj ci ne ndax dana wér ci ki nga xam ne dafa gis baax dafa dafa dafa am mbërëg ci muy woor bis boo xam ne daf ko yéene woon fekk jàpp na ne bu xëyee dana set ci bëccëg boobu far mu xëy set ndax yéene bis boobu dana dana wér wala bu fekkee bi muy set fekk na fajar jot kooku woor woor bis boobu waru ko woor ki muy war bu dee ku gis mbaax mooy mbaax mbaax mi dog na dog na lu jiitu fajar mooy lu jiitu daal waxtu koor du dugg waxtu koor yi xasee dugg rek te setut bis boobu du ko du ko woor du ko woor kon mooy bu ko defoon itam ba mu xëy mu dog bu jàppoon maanaam bu lekkutoon naanu defu dara it du tee mu fay bis boobu ndax bis boobu doonul koor gu wér ci moom du wér ci moom ndax bi waxtu koor di jot boobu laabut te kooku duñ wax rek ne koor kooram du wér waaye sax nag bàkkaar la def bàkkaar def nit ñi nañ nañ nañ yàlla ne woyofale diineem ji nañ ko ci topp te bañ koy diisal yàlla dane yonente bi jàngale ko jigéen bu gisee mbaax koor waru ko sañu ta woor bu wooroon tam du wér kon na bàyyi rek na bàyyi ba xam ne laab na rek bu laabee fekk muy fajar jotagut kon na yéene bu xëyee woor bu dee ba muy laab fekk fajar weesu na nga xam ne bis boobu du bokk ci bisu kooram boobu na na na def na jëfandikoo li ku wóor di jëfandikoo te bu koor gi jàllee mu fay bis boobu mu bokk ci bis muy feeñ mhm. jërëjëf sëriñ Cheikh Ma kii moom daf ne ndax dana dagan e, ci jullit bi mu yéene weer weer weew saxbaan ba mat ba mu àgg ci ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam nga xam ne weer bi tey dañ koy séntu feeñ na yow mu sëkk bis bi nga xam ne bisu sikk sàkk la dana dagan ci moom mu mu woor bisu sikk sàkk mooy lan xëy na da ci jublu bis bi ñu séntu weer yi wala bisu fanweer fanweer te fekk yéene woon na weer weeru saxbaan bi xam naa loolu moom waxin waxin la rek waaye bisu sikk sàkk man wax dëgg yàlla waxin la waaye xam naa hmm. ndax moom ñaari fi nekk ñaar juróom-ñeent bu amee dañuy séntu buñ gisee ne kon weeru mat na buñ gisut ba ca topp amu ci ci bis weeru la bokk sikki sàkk fi ñu koy waxee mooy koo xam ne ñaar fukk juróom-ñeent mat na te amut lu ko leer ba xëy te amut lu ko leer ba mu xëyee bis ba lañ tuddee sàkk amut lu ko leer daal ba xam feeñ na wala feeñut te kooku àtteb bu feeñut la war ndax nit day am xibaar mbaam bañ koo am moom boo amul xibaar ci ne feeñ na rek day jàpp na feeñut kon mooy bis boobu da koy da jàppe ci weer ne ci weeru baraxlu la bokk ginnaaw moom amul xibaar ci ne weer wi feeñ na biig kon jërul muy mu naan day sikk sàkka lu muy sikk sàkka yaa dañ na yow gisal boo gisul mottali bu gisul rek na mottali gisut xamut ko gis njëkkut ko gis na mottali rek mottali mooy kon na jàpp na bis boobu ci weeru baraxlu la bokk bu ko bëggee woor mu woor ko ci baraxlu la bokk hmm, waaye sikk sàkk moom jëru ko daal foogu mën a jamono yi moom lu lu lu yomb la jamono yi du jaatu moom mooy ku xëy ku ne dana xam bis bi ci weer sàngam la bokk ku ci xamutoon dara nag da koy boole ci weer bis ci weer weer wi nekkoon rek. fi mu ne ndax dana jagan ci jullit bi mu nuyee maanaam mu fay ab yéefar wala ab kitaabiya ci ngir mu koy nàmpalal doomam ngir mu mën a jàppale ci moom mu woor maanaam xëy na nàmpal gi da koy lool mu dem seet ab kitaabiya wala ab yéefar jox ko doomam ngir mu nàmpalal ko ngir moom mu mën a woor. kooku sant santuñ ko mu koy jox kenn mu koy nàmpalal. jullit ak ku dul jullit mooy li ma doon wax léegi rek ne yàlla jàppandal gi mu jàppandal nit ñi nañ koy jëfandikoo bañ a teg seen bopp lu diis yàlla moo may jigéen ji nàmpal bu fekkee nàmpal gi da koy lor mbaa muy lor doom ji mu bañ a wor saa bu demee ba génn ci mu fay na def loolu rek jërut muy jël ku koy nàmpalal ba naan jullit la ak du jullit waaye nag bu dee leneen a tax muy nàmpalul moom leneen moo tax muy naam nàmpallu booba it dañ naan nag bu amee jullit bu mënee am jullit sañu ta jël ku dul jullit ki dem ba aajowoo ku nampal doomam ngir ay sabab yeneen sabab yoo xam daal maye na nit di di di mu nàmpal doomam bu mënee am ab jullit warta jël ku ab julit bu amatub jullit nag mën naa jël keneen ku dul jullit bu fekkee amul jullit bu ko nàmpalal mën naa jël keneen ku dul jullit mu nàmpalal ko waaye bu mënee am jullit nag du sañ jël keneen ku dul jullit waaye nag moom bëgg a woor moom warta tax muy muy muy muy muy nàmpal yàllaa ko may bu fekkee koor gi da koy lor mbaa muy lor fi muy nàmpal mu bañ a woor ba génn ci loolu jërëjëf sëriñ na mu mel ne waxtu wi xanaa sant ñëpp rek ci topp gi ñuy topp di jégguluwaat ñëpp itam di ñaanaat leen ñaanal ci njëlbeen gi rek lu ci jub yàlla defal nag jàppandal ba mën koo jariñoo lu ci dëng itam yàlla jéggal na ko ñu ngi jéggul ñëpp di sant ñépp di gërëm ñëpp wa salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf ñun tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal suñu borom gën laa kattanal te gën laa wéral nga yittewoo bi nga xam ne yittewoo ko a lislaam bi saa su la soxlaa ci wàllu laaj bi ngeen seen wàllu diine ak seen wàllu addina yàlla yàlla gën a kattanal